Subhana به مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بإحسانه إلى يوم الدين معاشر الإخوة في الله السلام عليكم ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ñu leen di masawu coono di leen baalaaq di ñaan yàlla sunu borom yàlla ñu yàlla boole jéggal waaye mu mel ni coono gi coono yiw dong la ndax wa mawliduhu bihi sarafun wa xiirun fa fi taazim injaa fi sujud kon dañuy sant yàlla bu baax ginnaaw bañ ci yàlla boole damay faral di wax rek lii bokk ci du mérite sens la kon nag bi ñu ci yàlla boolee dañ sant bu baax a baax di nuyu sang bu tedd bi fi teew di sunu kilifa di sunu lépp Chérif Ibrahima Haydara Tijaani ñu ngi lay ziar Chérif ñu ngi lay ziar di la wàccee sa wàccuwaay di la jéggalu kàddu yi ñuy yëkkati sa kanam ndax laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi kon ñu ngi ciy jéggalu bu baax waaye it la si ñaan ndigal bu ko defee rek kàddu yi du mën a bari doonte it am nañ ci ndigal waaye kàddu cant la rek yoo xam ni imaam moo ko moom moom la ñuy jox ndax bëggoon nañu jiital kàddu yi avant ngay ñëw waaye yàlla dafa dogal sang yi nekkoon ci waar yi te it ñu tolloon foo xam ne tabaarakallaahu su ko defee rek kon kàddu yi dañuy jox imaam mu dalal Chérif Ibrahima Haydara sant mbokk yëpp jéggalu ñëpp ñaanal ñëpp su yeggalee mu jox Chérif Oustaz Sidi Ahmad daan taxaw fii waaye yàlla dafa dogal am beneen waar wu ngay xar ci waar yi moo tax mu wuute waaye incha allah mu ngi bàyyi xel xadara bi bu baax su ko defee comme kilifa gi teew na nag ah wax dëgg yàlla amatuñ ci kàddu liñ ci yokk ak liñ ciy wàcc dañuy jox imaam Youssou Gueye rek mu jotal kàdd yi su yeggalee ñu jox sang bi bu waxtaanal ñu ñaanal ñu ñu yeewee ko ba déwén incha allah ngeen baal naa. Ayil Gueye su ma limee rek damay bëgg juu waaye kàddu yi du bare chérif dañ lay seedeel lu dul bari jox la kàddu gi ndax mi ngi bëgg a guddi te it xam nañ ni yaa ngi ci yeneen yitte kon donc du ñu guddal lool kàddu yu kàddu yu sant la yu nga xam ni dañ koy sant mbokk yi yépp di mbokki deret di mbokki meen di mbokki dëkkandoo di ay xarit di ay àndandoo di sant itam sunuy dëkkandoo yi nga xam ni ay kilifa lañu ci ñun ndax eh, bu ñu leen xoolee rek bëti way jur ya lañ leen di xoolee ndax ñoom la woon ak ñoom démb kon ñooñu it ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax eh, di ci set eh, ñenn rek du ma leen tuddee mu mel ni tudd naa ñi ci des ñëpp jigéen ñi toog ñëpp samay mbokk lañ ñii ñi ngi jóge ba Ndar ñii ñi ngi jóge ba Touba ñii ñi ngi jóge ba Louga ba dëkk ba Njóobeenu Mbataar diggante Ndar ak Louga ñoom ñëpp ñu di ñëw ngir yàlla ak guddi gi ak dundal ak mbokk ñi ngi leen di nuyu du ñu tudd bu ñu limee dañuy juum ndax mm, kenn ku nekk rek war nañ la tudd ci sa tur jaar ci sa sant te kon kàdd yi dana gudd waaye ñu seedeel la ni rek ñu ngi leen di sant bu baax mbokk yi ci góor ak ci jigéen waaye nag rawatina suñuy dëkkandoo ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax ñoom it taxawu nañu démb taxawu nañu itam tey waaw am na ku ma daan tudd muy Abi Guèye sama jigéen la moom ak ay rakkam macha allah tax lañ daan taxawe yëpp taxawe nañ ko waaw waaw di sant it day day saw di soxna mbay jum bii dama koy wax toujours burdu bi sunu wayjur moo ñu santoon 1990 wala 89 teru mu woo ma ni ma yusufa ma ni ko labbayk mu ni ma barkeelu leen ci doonte benn guddi la loolu moo doon sabab guddi googu moo ñu jox 1000 francs ni ñoo ataaye leen wala ngeen def meew man ak Déydéy Sow ak malik Sow ak Ousmane Seck ak mayem mbuub ñu laa ci jàpp barewuñu woon ci sama biir néeg lañu defee burdu boobu bi ñu defee burdu bi ba noppi bi ma xëyee nuyu ko mu ni ma seen burdu bi bi de xumb na ma ni ko ah ña fa nekkoon de barewuñu man ak jiw ak jiw ñoo fa nekkoon lim leen benn par benn mu ni ma ah, seen néeg bi de fees na dell ak ay nit yu weex ma ni ko ah, man day gisuma leen man day ñii laa gis parce que sama dégg foofu la tolloon ci ba muy wax ak man sama gis-gis foofu la tolloon ci ba muy wax ak man waaye dem naa it ba xam ni wax na dëgg ndax ngeen ñu ko jàngalee ñu xamee ko noonu ci njabootu yonent bi njabootu Cheikh Tijaan yi fu ñu toog doonte ñetti nit lañu fa di jëfandikoo turu yàlla walla ñuy jëfandikoo tagg yonent bi du ñoom rek ñoo koy daje loolu ginnaaw gi lañ koy dogu a yëg ah bu ko defee kon muy ndigal boobu ñooñu ñu ko àndanteeloo na ba léegi ñoom lañ koy àndanteel kon ñu ngi leen ciy sant bu baax waaw ñu ngi leen ciy sant bu baax rawatina nag day day saw moom man amaluma ko sant bi ma koy sant du am fu muy tàmbalee du am fu muy yem ndax ca commencement booba la woon ba suñu joon yàlla tey kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla itam e, sunu mbokk yi fi daje yépp ñoom itam macha allah du ren bi e, ku ko xool xam ni e, mànkewul ay nit yaakaar naa ku ko xool rek xam ni mobilisé wu nañu ñiy jóge Touba ñiy jóge Louga ñiy jóge Ndar ñi jógee lu ko lool wax naa ko de ñooñu ñëpp ñu bokk ñëw am ci góor am ci jigéen na ñëpp bokk ñëw ñu leen di sant ci taxawaay boobu waaye li may wax yëpp itam dama ci di ndaw rek ndax Ibrahima Gueye ngi nii Ismaïla Gueye ngi nii kon donc man maa nekk seen ndaw bi nekk ci terrain bi kon li fiy dox maa koy xam kon bu ñu toogee rek loolooy waral may jël kàddu ci seen kanam pour seedeel la loolu waaw di sant itam Bas Jaxate di sant itam bay di sëy di la sàkku ci yow nga ñaanal leen ndax ñoom itamit jamono bu nekk ñu ngi may jàppale ci lu bari raw bas moom surtout seize yi moom depuis ñu commencé def di teg ay seize ak léegi daanaka chaque année daaw rek la joxewul seize daaw rek la ko joxewul euh, te yónnee na njëgu seize itam waaw daaw sama doomu nijaay moo ko joxe ngañ boobu moo luye seize yi jaar yépp waaw moom it ñu koy ñaanal yàlla bëggoon na ñëw mais dafa nekk ci service moo tax ñëwul yónni na jabaram léegi ñu ñëw wax ma ni ma dafa nekk ci service moo tax ñëwul mais bëggoon na teew ñu ngi koy sant bu baax di sant ñëpp ci làmmiñu Ibrahim Gueye ci làmmiñu euh, Ismaahila Gueye waaw di sant itam sunu jarbaat Mor Mor moom dama koy bereel toujours mention spéciale waaw dañ koy beral loxo mention spéciale ndax moom itamit depuis mu yëg ni burdu bi maa ngi koy yëngatu kenn kenn mënu ko kenn mënu ko ci di sant it sama rakk yi Mamadou duggee xam nga ko ca Italie ak Abdou Gueye Abdou moom moo njëkk sax publier burdu bi ko Ibrahima bi ma ko koy wax dama ne ko jéggal ma de ndax Abdou publier na ko moom ba mu dégg ko te fekk waxtaan bu maak moom waaw ñoom ñëpp ñoom itamit def nañ ci seen doole def seen kàttan jàpp si ñoom itam ñu leen di sant te di leen ñaanal yàlla eh, gudd fan ak wér ak yàlla yokk seeni wërsëg ba lépp ñu mën ko taxawee beneen bi ci des nag kooku mooy ndey mbil gi mooy Chérif ay Aïdara suñu mënee lu mel nii jëmmam moo tax sunu mënee lu mel nii Ibrahima ñu la koy seedeel di ko seedeel Ismaahil parce que moom moo ñu ñemeloo ba pare teg ñu loxo lu ñu soxla mu defal lu ko ci lépp nag lu mu mën a doon kii di Mansour Thiam moom moo koy sant toujours muy ñëw di def baas la ca aju yëpp man sax xaw ma nu mu demee sërif nii moo xam ni mu demee waaye chaque année bu kiyee moom lay wax ni ko acca demal nga def nangam ak nangam kon loolu moom itam dañ ko ci sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla ko defee kàddu yi daal du bari sërif loolu la namm nañu la ci sa waxtaan namm nañu la ci sa jëmm namm nañu la ci sa lépp ndax daaw sa kàddu lañu déggoon ci téléphone waaw am nañu ko kontaan ñu si kontaan lool ci dégg téléphone kon boo teewee ci sunu kanam dina raw a ci yaakaar na kon nag ko defee ngeen bal ñu ak waaw pour Ibrahima wala Ismaahil waaw bu ko defee kon noonu ko shérif waxee rek noonu lay demee waaw dañuy daal di eh, jéggalu nag parce que li tax may jéggalu mooy bu ma sañoon kenn ku nekk dinaa tudd sa tur ci góor ak jigéen ci mag ak ndaw waaye xëy na waxtu wi moo ñu ko mayul ba mu jeex ngeen baal ñu ko jéggal ñu ko di ñaan yàlla dolli sutura yokk xéewal yi bu baax mbay jum it macha allah mbay jum bu ma ko tuddul musiba moom moom lu rafetal baas rek moo ma ba pare ñooy ànd di burdu burdu yi yëpp moom itamit mbay jóg waaw ndax saa yu burdu teroo dañuy burdu ci biir kër gi ba ba bis bi di ñëw ñu doog a àndandoo tamit di ko def bu paasee it bu ñu arrêté dañuy continuer di burdu di def loolu yëpp ñu koy ànd di def mbay ku baax yal na yàlla sàmmal nu ko yal na yàlla wéeral ay cër yal na yàlla guddal fanam yal yàlla yokk ay wér wërsëgam te defal ko taw tawféex moom itam macha allah kenn ku nekk rek ñaan bu ma ñaan rek ñu fi teew ñëpp amel naa leen ñaan googu maam góor moom itam macha allah su ma ko tuddul musiba am sëriñ maam góor ba ñu commencé burdu bi di ko dajale nii ba ma ko woowee wax ko ko ak léegi du ma sax déranger téléphone laa koy woo rek ni ko ah jàpp sëriñ jàpp na bis bi wax ko sànq mu daal di ni ma kon nag la woon ko woon amul benn problème ñun dañuy ñëw waaw heure bu ma ko waxi tamit heure boobu da koy respecté ndax tey teel naa ñëw lool te dama ni ko woon bu ñu jullee timis rek ñu tàmbali mais ndax bëggoon service teel a ñëw moom itam mais ba ma ko ko waxee moom itam teel naa ñëw lool ñun dañoo julli timis balaa geew a jot ak si ñaar bi kon bu ko defee kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla dolli sutura yëpp ngeen baal ñu ak kon ñu jox kon yàlla mi am pay yàlla noo ko fay ngën gi pay boole ñu ci du jaay naa Mustafa wax ju du gudd ndax moom mii am na lu ko tënk leneen lu dul lii kon nañ gàttal gàttal bi mooy lan ñu déglu ko mu waxtaan waxal mu ci lam nu daan waxal ñu jóge fi jariñu kon Chérif jazakallahu xayran Ismaïl sànni ci kàddu mënul ñàkk rek xanaa ñu sànni ci tuuti rek ngir ndigal waaye ñun fii amuñu fi kàddu teewaay rek lañu fi am ndax kuy toog sa wetu sëriñ ni ko imaam Yuusu waxee Ibrahima Guèye mii mooy sunu xalifa boo toppee seen direct bi direct bi mooy fi xalifa mu dundumbe gi ci wàllu géño déedéet ci wàllu gi ween meen nag ku ñu mundu mundu gi aram sayral kon nag sunu mag du fi nekk ñu fi sànni kàddu waaye nag bu ñu nee bu nee sànni sa kàddu nañ si sànni kàddu surtout yow nag nga appuyé teet euh, imaam Yuusuf Ibrahima ñun ñoo bokk bàyyi waaye sunu sëriñ lañu mooy toujours dama koy faral di wax rakk la waaye sëriñ la kii mag la waaye suñu sëriñ la lu tax faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا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

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات sadaqa allahul aziim bu ngeen yeggee rek mu fekk kilise yi yónni malaaka yi yóbbul nañ ko yónnant bi li may wax du ay théorie malaaka yaa ngi fi di filmer di caméra comme ni ko Omar Diop di defe su fajar bi xar nag dañuy jël kilise yi yóbbu ne yàlla sa gaañaa nga ñoom de àddina la muy tàng tàng tàng ak la muy tërëdi tërëdi fokk leen bëgg nañ sallallahu alayhi wa sallam ba guddi lëmm lañ fanaan di ko waxtaanee yàllaa leen ko gën a xam sax waaye ñu ne ko yàlla portale yaa ngi nii xoolal ñii yàlla na leen lu ma leen waxoon inni aalamu maa laa taalamoon xamoon naa lu ngeen xamut xam naa lu ngeen xamul kon ñama leen doon wax nit ñu bari bàkkaar lañ waaye ñu ma mën a jaamu lañ ndax kama booleel moo tax ñu ñooy ñii yàlla nañu ci yàlla boole yàlla nañu ci yàlla boole moo tax bu kenn yàkkamti su may dem rek damay woo oustaz Sidi Ahmed mu ñëw jël kii continuer fi ma yem ci rasulullahi moo tax nag may ñaan ñun ñëpp nañ sax ci bëgg yonent bi bu julli jotee nañ julli jigéen ñi ku ci amul ngan fonk leen julli mooy dàtt bi julli mooy dàtt bi de lu waaye di defal yàlla te julli woo yàlla bëggul ah? gannaaw imaanu billaahi ngëm yàlla ak yonent bi julli mooy premier bu nangu nag suñu yoon newu ci buñ def niñ la ko santee lañ wax julli bu nangu yàlla rek a xam kenn mënta waat ne li nga julli yàlla nangu na ko waaye mën ngaa waat ne ni mu ko waxee defe naa ko waaye moom am na yërmande ju day ni du liggéeyloo nit te du ko fay yéen ñii sax ku ci am jànq bu weer dee nga fay ko ku ci nekk ci service di liggéey bu weer dee ñu fay la imaam moom amul weer wute waaye léeg sax ñu sarax ko ci jàkk ji dëgg la wala dëgg benn waay romb ne eh, waaye imaam a nekk fii xaaral ma làmb ab junni jox ko kooku sax ku baax la waaye ñu gën a baax ci jàkka ja ñeenti sondel juróomi pusa ñetti doomi guro yu weex ñaar yu ñuul <coughs> ñaar yu xonq ak juróom ñaari mètre yi pelkaar windeel ko ci bopp bi ba mu xiir juróom ñaari yoon ne na yóbbaale sama ay romb ci bunti jàkka ji ne imaam am yàlla jox la li ma yoo xam na ko léeg-léeg ñu encaissé sarax yoo xam ne man su ma doon imaam dama naan la jëlal jëlal jëlal yóbbul man ilimaan sama mënta sarax xarumtu laa biir mu baax jesneer bu baax parfum bu neex fukki junni yu baax jéggal naa la ndax yàlla am na lopp lool toog xaar yàlla ci jàkk ji yàkk yàlla dina la fa fekk waaye sarax yu bon yooyu nu ko nit di doxee nit te moo fi fees del moo tax nag nañ julli nañ gëm yàlla te julli julli bu ko kenn fàtt maa ngi ciy préciser de lu waay di defal yàlla ak noo mën a mel ak loo baax baax loo saraxe saraxe dëkkal màkk gi at bu jot nga dem ñëw umra at mu jot nga umra ñëw defal lu la neex saraxel sa alal te doo julli yàlla gisul ñàkkal lépp bul def dara te yaa ngi julli yow la yàlla teg loxo soo xesee bay julli nag julli googu nag bu ci sukkandiku ne man de àjjana laa jëm loolu la sëñ Tuubaa jàngale loolu la Seydi Hadji Malick jàngale danga naan la ma yàlla santoon daal def naa ko léegi nag lu ko neex ci man na ko def ndax moo ma bind jeex na la ma yàlla santoon def naa ko léegi nag ab jaamam laa lu ko neex na ma def waaye bul sukkandiku ci sa jëf yi yàlla du baadoolo nag dëgg dëgg léeg-léeg gar mi ngay ñëw te ñu baal ma ci waxin bi léeg-léeg sab géwél day ñëw di la woy di la woy ba nga ubbi sa armoire wax yépp jox sa kalpe yëpp nga jox ba ba koo doon dendeel ne ko abal ma te sab sab géwél doo nga la woy waaw buur bu toll ni yàlla nag nga di ko bàkk ihdina siraatal mustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala daalin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala daalin amiin bismillahi rahmaani rahiim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar jël sa jëbëy sujjóot ruqu toog ab diir damm sa ndigg xoolal loolu ni mu métti damm sa ndigg ab diir siggi taxaw tem allahu akbar li nga gënoon a fonk muy sax xam-xamam bi nga ne ko ràpp ci suuf allahu akbar boole koog allahu akbar toog joxoñ sa loxo ataxiyaatu lillahi azaakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu aleyna wa ala ibaadillahi saalihin ba taaye bi jeex nga ne assalaamu aleykum assalaamu aleykum yàlla ne malaaka yi tàcc leen waay kii laa doon wër kii kii laa doon wër dégg ngeen lim wax ci man lim baax la yëpp jox na ma lim tedd la yëpp jox na ma ba lam gën a fonk muy jéem bi rëpp na ko ci suuf ndax man waaye yëkkatil leen ma ko ca kaw na malaaka yi di sàbbal sa tur yow ca kaw yàlla nañ ci bokk loolu lu ko dàq am na dem ba yàlla xàmmee la ci biir jaamam yi ne malaaka yi kii xàmmee naa ndax bu waxtu jotee mu bàyyi lépp yëg ne maa ko bind jël jéem bi ne ko ràpp ci suuf di ma bàkk di ma màggal di ma yëkkati yéen it yëkkatil moo tax war a faa naa laka yàlla ne foo doxati nag fa inna ma al def nga li la war bi pare lu jafeeti ma yombal jeex na fa inna maa al usri yusra inna yàlla ne fa ida faraxta soo noppee ci julli bi fan sab waaye bu ma fàtte nag wa ila rabbika farxab lii mooy julli yàlla bég kontaan kontaan yàlla rek jar na lu ne xoolal rek li ma leen mag mu taxaw sa njaboot yëpp taxaw nga ne defar leen sàppe bi waay soxna yi la nga xam ne yow rek lañ bëgg nekk ci ginnaaw te danaa jiitee gën a ñaaw ci li yàlla bind bu ko yàlla santaane wutoon kenn du ko def magum jëmm di juutu nañ waxante dëgg góor gi Fatal Saaxaw bi newoon kër soose keroog bi ñu ko falee ilimaan waaye Saalum yëpp ñëw di ko ndokkeel Saaxaw ilimaan yow lañ fal ilimaan am jumaa ji wax wax ba pare mu ne yéen a ñàkk fayda Saalum Saalum yaa dàq juutu rek dafa jaarul ndokkeel bi <coughs> bañ ku koy yéegal ñépp ne te sax mu ne yéen saalum yéen a ñàkk fayda yaa fi dàq juutu kaay jiitu ñëpp di juutu ñëpp juutu loolu dafa jar ngeen ñëw fii di ma naan ma saaxo yi limaan fal la nangam ak nangam ak nangam wéy leen way te wax na dëgg ilimaan bi dara lu dul dàq juutu kaay juutu ñëpp juutu topp ci sa kaw lii rek mooy ilimaan xoolal rek magum jëmm taxaw njaboot gi yëpp taxaw rang leen acca defar leen sàpp yi xale yi dem leen ci gannaaw jigéen ñi yéen taxaw leen nii acca moo du liqaam moo du allahu akbar bismillahi rahmaani rahim yàlla ne koy wax ne tekk di la dog xadara boo nee allahu akbar rek xadara bi ubbeeku mooy caabi bi koy ubbi lu tax waxoo allahu rahim lu tax waxoo allahu rahman lu tax waxoo allahu malik lu tax waxoo allahu alquddus lu tax waxoo allahu salaam allahu muumin allahu muhaymin allahu aziz allahu jabbaar mutakabbir xaaliqul baariu lu tax waxoo ko yàlla benn baat la tànn loo mën a wax lu dul baat boobu soxlaw ko moo di allahu akbar xam nga lu muy firi allahu yàlla ne tekk di la foo jëm nga ne ko akbaru mu ne wax nga dëgg ndax maa gën a màgg sa njaboot gi ci sa ginnaaw ndax maa la ko jox maa gën a màgg xaalis bi ci sa poos bi ndax maa la ko jox ba nga denc ca banque ba kazalik tur yi nga fiy dégg ñu di la ko wooye yépp imaam indiwaale woon rabbil alamin maa ngi lay sant de lii may def bu sa kattan aw ma ko boo ma roofutoon ngëm gi mënuma ko xel mu sell mi ma koy defee yaa ma ko jox alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim sa yërmande yow mi diin bañ jëm te mu wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa bannihi lu tax li kulli imri'in minhum yow ma idin sha'nun bés ba doom di daw ndeyam ak ni ndey bëggee doom doom seen ndeyam yaay mu ne ko duma sa ndey de sori ma sori ma xamuma la nga ne bàyyi mu ne la fu ma la juree kañ lañ seq dara maag yow beeg ma naan bàyyi nga taxaw di xiini xiini yow ma yafirul maru min axi wa ummi déy déy déy déy ne ko kii kan nga déy déy nii nga may accueillir yaay kan ah dee fàtte xaju fi di yaay kan laa wax gaawal fii dafa métti yaa ngi may tardel yaay kan ah, man a papa mbay jum kuy kooku kooku mos naa am ah, lii nga may fay mooy mar yow ma yafirul mar u min axi wa ummihi wa saahibatihi mooy jabar ak jëkkër di dawante jabar ak jëkkër di dawante ak amour nu mën a toll loo ko bëgg bëgg bëgg bu la séenee daw boo ko séenee daw ndax dangay yaakaar ne dafa am lum lay laaj te amoo yàlla na ñuy dawante mu ne di nga gis jigéen ju toll woon ci ñaari weer tiit ba wasit mu ne di nga gis xale bu tuuti di liir dekki rek bay jaaw weex tal ndax tiit moo tax nga na ngay muslu ci bés boobu maliki yow mi diin yow yaay buuru bés boobale buñ fa yeggee nag iyyaka na'budu looloo tax ma di la jaamu wa iyyaka nasta'inu buñ ca yeggee sa ndimbal rek laa soxla kon nag ihdina balaa ñu fa dem jubal ma yoon wa fa jëm ma jaar ci siraatal mustaqim yàlla ne ban yoon nga ne ko siraata alladina an amta alayhim yoon wa nga joxoon gaaña muy yonent yu sell yu baax yi yoon ya ngi leen joxoon yooyu lay wax gayril maxduubi alayhim bul ma teg mukk ci yoon ña nga mere woon mooy yëwut ba soppi leen goloo ki mbaam mbaam xuux yàlla daf leen mere woon bés rek yëwut yi jigéen yi mu soppi leen golo góor yi mu soppi leen mbaam xuux ku génn sa néeg ne na teg nga gis ku génn rek ak gennam teg ñeent fukki fan lañ dundaat faatu ñeent fukki du fan lañ dundaat faatu ñooñu dong la yàlla ma sa soppi ay golo ki mbaam ndax jéppi leen daf leen mooy yàlla nga metti woon ba yàlla jéppi leen soppi leen golo xirata wal xanaasiir Sénégal booy wax ma leer man alxuraan lay waxtaani xiradata wal xanaazir xiradata mooy jigéen ña jigéen ña la soppi woon ay golo moo tax mu ne xiradata wal xanaa xanaazir góor ña mu soppi leen mbaam ko xam nga góor ëpp kàttan bu génnee dañ naa xuux ñi génn rek teg utali àll la mu ne moo tax góor gis nga foofu yàlla buy soppi ba muy soppi sax dafa teral jigéen ñi xam nga golo gën a rafet mbaam ko ndax golo gën a niru nit dëgg la wala dëgg waaye mbaam xuux kor ñaañi baal leen ma mu jeex na bàyyaale ne na mbokkum naar la moom naar xaw nañ niroo sax dégg nga tax mu ne xayril maxdubi yàlla bu ma mere ba boole ma ci ña rëbboon def leen ay golo ki mbaam xayril maxdubi alayhim mooy yahudi wala daalina du jàggeen ñi réer mooy nasaraan xam nga lu tax mu tuddee leen ñi réer inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu yoon yonent yàlla isaa ba muy dem dafa ne maa ngi leen di bégal ci yonent boo xam ne mu ngi ñëw sama ginnaaw kooku dey moo ma gën man isa bnu maryam li may baax baax ngeen bëgg ma moo ma gën ndax bu du toon moom duñ ma bind ñu ne ko num tudd mu ne ahmadu mu ñëw ñuy dof dof lu yàlla réeral la moo tax mu ne xëyril maxdubi yàlla ñu ngi lay ñaan bu ñu boole mukk ci ja mere woon bi soppale ni mbaam foofu ak i golo muy yawut yi wala daaliina bum di nasaraan yi nga xam ne dañoo réer ba réere yonent mënuñ koo gëm mukk bu ñu boole ci ñoom nga ne amiin ci sa xol wala ca kaw yàlla ne nangu na waaye tegal ma ci dara muy laissez-passer nga ne ko xul moo tax saar am bii sa diggante personnel la ak sa borom sant nga ko ci kàttan bi sant nga ko ci mën-mën bi ndax bu la ko xañoon doo ko mën sant nga ko ci xel mu sell mu rafet sant nga ko ci lépp delloo nga ko lépp lim moom yépp jox nga ko mu ne la léegi nag laissez passer moo tax ñu ne la indil saar nga ne bis nga ne qul huwa allahu ahad yaa waxoon kii sang bi ne ko neel gaañi allahu ahad yàlla kenn allahu samad moom la ñuy jooy soxla yi te du jooy kenn soxla kooku nag bu ngeen ko bëggee xam lam yalit jurut kenn walam yulat te kenn juru walam yakun nekkul lahu di ko ñeel ku fu an ci nguuram gi ahadan ak kenn associé wu la kenn yàlla ne yaa ma wax lii nga ne waaw mu ne won ma ko nga ne allahu akbar téesay o mu ne malaaka yi xool leen malaaka yi sëpp di la xool nga rukku te am na malaaka yi yàlla bind rukku rek lañ def alhamdulillahi alladi jaai lil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa yàlla ne malaaka yi am na ñoo xam ne ñaari ràkk rek laa leen sant ba ma leen bindee ba bés peñ ci taxaw ñu ngi koy def paree bi temm allahu akbar ñooñu noonu rek lañ def am ñoo xam ne allahu akbar kese moom lañ buñ siggeetee yowmal xiyaam am ñoo xam ne sujud rek lañ def buñ siggeetee rek yowmal xiyaam am ñoo xam ne dañ toog ne sàtt di taaye buñ sëlmalee yowmal xiyaam yàlla ne yow mi bokk ci yonent bi di xeetam bokk ci xeetu yonent bi may naa la ci benn laps de temps bu gàtt bu tuuti juróomi minute nga booleel ma àddina ak àllaaxira ma def ci sa compte lii neexu nga def ñaari rakkay fajar ñaari rakkay suba fekk am na malaaka moo xam ne ci ñaari rakka yooyu la ko yàlla bind ba nga juddoogut yow ba maam aadama juddoogut laa wax de yàlla bindagul maam aadama xalaatut pour bind ko malaaka yooyu nii rek lañ ma te buñ siggee yàlla dëq seen digg suju ruku boobu la ñuy def ba bés bañ ci taxaw amuñ droit siggi ci la leen yàlla bind ñoom ba mu bindagul maam aadama laa wax te ñoom dañ caa bég ndax yegg nañ bi yàlla di bind maam aadama annoncé leen ko ne ko dama bëgg a def inni jaailun fil ardi xalifatan dafa dama bëgg ku ma wuutu ci suuf yéen ngeen jógee fa ma affecté leen ci yeneen pays yi yéen ngeen doomu aadama yooyu nekk fa malaaka yëpp yuuxu ne ko yàlla li ngay def yaa ko tey atajalu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka seetal wax bu ni neex bindagul maam aadama dara xewagul de yàlla annoncé leen ko yàlla ku baax la ëpp leen puissance ëpp leen doole bind leen ëpp leen kàttan xam nga loo ciy déggee loo yilif yilif kër gi del diisoog njaboot yaay borom kër gu góor yaay borom kër gu jigéen neel xale yi lu ngeen bëgg a añee tey nga seet ñi ëpp lu ñu wax ngeen togg ko waaye borom kër ana Ismaïla bu fi newoon moom laay jël exemple am dépense toggal ceebu jën ah bu ma ñëwee naa fekk ceebu jën yaa égoïste kër gi est-ce que ñoom ñëpp ceebu jën lañ bëgg seetal dangay seet da ngay joxe dépense bi rek dem ndaw si nag moom xam na xale yi lu ñu gën a bëgg parce que mooy togg xam nga lu tax mu xam bu dee luñ bëgg bëgg ko lool dañuy ñett de bool ba ma caat yax yax di laaj njaboot bu dee luñ bëggul ku ne capp baaraam jóg seeti mbiskit di nga xam ne añ bii soppuñu loolu jigéen rek a ko mën a xam waaye góor mënu ko xam moo tax góor dépense joxe la ci am na doxe te dem luñ togg mu doy ko waaye joxe dépense naan toggal leen ma su loxo mbalax def nga musiba góor du warut góor dépense rek nga war a joxe moom la la yàlla sant waaye lañuy ñuy togg ndaw see koy désigné ndaw si it bu mu ko désigné te xoolul lu waa kër gi bëgg mu togg waaye bëgg a koñe gaa yi xam nga ne am na ñu sopput suppu kañ nga dóor suppu kañ ndax koñ mere nga am na ñoo mere ci kër gi pour buñ añ tey day am am na ñoo mere ci kër gi pour buñ am añ tey bëgguñ mbaxal nga dóor mbaxal bëgguñ suppu kañ nga dóor suppu kañ ah <coughs> waaw bayaale kañ moom mu ngi saarit moom te demagul fenn nee na boobu ma wax dàq ci togg yi danga naan moo la dàqal Serigne Cheikh Tidiane si sëñ Moustapha responsable moral moo ko waxoon nee na dama toog ak Serigne Mansour taawu Serigne Cheikh ñuy werante ñoom ñaar sëñ Moustapha ak sëriñ sëñ Cheikh sëñ Mansour ñuy werante ci kanamu sëñ Cheikh mu ne sëñ Moustapha naan ko couleur blanc moo dàq kii ne ko non couleur noir moo dàq. nee mu ne ko déet sëriñ Cheikh na leen déet ku nekk dafa naan moom a dàqal ndax am na koo xam ne couleur blanc baaxul ci moom neexu kooku ba ko neex moo ko dàqal moo baax ci moom mu ne ko mu ne leen couleur problème de choix la kenn ku ne da ngay tànn lu la neex noonu la lekk gi mel lekk tamit problème de choix la kenn ku ne la nga bëgg lekk ngay lekk soo gis nga yàlla bind lépp yilif lépp am kàttani lépp di diisoog malaaka yi te moo leen bind pourtant mën leen écraser léegi jëlee leen fii indi leneen lu ko neex waaye dafa ne leen ah maa leen bind de ngeen di sama njaboot juruma leen nag waaye dama am ci yéen ñëwante inni jaa'ilun fil ardi xalifa dama bëgg a utal suuf ku leen wuutu yéen rek malaaka yu yuw atajalu fiiha yàlla da nga ñu fiy jëlee suuf nga yóbbu fa koo xam ne atajallu ndax na ngay def fii ci suuf man koo xam ne yaf si ko day tuur ak dimaa ak deret amut tey léegi rek dégg naa ko ñu rey ca Touba jigéen encore Sénégal léegi rey gaa ngi ne xus rey nit du dara ci ñoom tey rek laa koy dégg ci journal léegi mënoo xëy suba ba jant bi sotti déggoo ko ñu rey wala ko ñu jam raw di dinaa am ku ma la booleel dégg nga naa la booleeg Mansour gi atajalu ndax da ngay def fiihaa ci kaw suuf man koo xam ne yaf si ko day tuur ak dima ak deret amul tey rey gaa ngi ne xus xoolal fële ca siri la ñuy rey bër bu set kenn xamul lu mu toll juróom-ñaari at ñu ngay rey rek ci ay xale yu tuuti xale yi door a nam ay liir ñépp la ñuy massacre xoolal ba ci waa ji ñu rey al yi bii ñu rey biñ koy rey mu ngi ànd ak ñetti doomam yu ndaw ñëpp lañ ci boole ñetti doomam yu tuuti bul ni xam métti na dëgg la waaye moom it lim tegoon gor yi métti na mu ngi làqoon ay doomam ñi rey ay doomu jàmb léegi yàlla rey na doom égalité la rek de man yàlla tooñut de dafa làqoon ay doomam ci bënkoo bunker di rey lu ay doomu jàmbur léegi yàlla feeñal bunkóor ba ñu rey ko reyaale ay doomam moom it boo léegi nag yàlla atte yàlla ku màndu la yàlla ku màndu la li malaaka yi waxoon amul wayaf siku dimaa dañuy tuur dara te wa nahnu ñun malaaka yi nu sabbixu dañuy sabbal bi hamdika di la ko sante sa mënuñoo mooy yàlla malaaka laa yaasuuna allah bu bëggoon mooy yàlla sax mënu ko ndax yàlla moo ñaalewu ko du ko xalaat ba di ko def wa yafaluuna maa yumaruun ndigalu yàlla rek lañ mën a def malaaka laa yaakuluuna du ñu lekk wala yanaamuuna du ñu nelaw duñ lekk duñu naan duñ nelaw wala yashrabuuna jaamu yàlla rek mooy seen métier kon li ñu wax dëggal wa nahnu ñun malaaka yi nu sabbixu bi xamdika ñu ngi lay sant di la sàbbal wa nu qaddisu ñu ngay sellal laka ñel foofu la yàlla dóoree yet na bañ ko mënoon nañ yem ci jaamu gi rek waaye bañ yeggee ci baatu sellal nag yàlla na leen sell nag maa ko moom moo tax mu joxoñ ñu falaa tuzakku anfusakum balillaahu kii man yasha bu leen di def fu ngeen toll naan man ku ku sell laa ko nangam laa yàlla leen man maa xam man yàlla ki sell dégg wax waaw léegi xoolal yàlla ton lu yàlla ton qaala inni aalamu maa laa taalamu man yàlla mi leen bind xam naa lu ngeen xamut yéen malaayika yi xam nga booba lu mu ci jublu ñun ñi di xeetu yonent mu ne malaaka yi bind naa xeet woo xam ne ñoo gën a tuuti ci xeet yi ummatan wasatan waaye ñoo ma gën a dàq jàmm ndax seen cofeel ca kama leen booleel kookoo tax ma bind lépp dama leen di yéegal seen jëf yu tuuti yooyee ca kooka te kooka mooy sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam xoolal nga rukkoo siggi ruku am na malaaka yoo xam ne ñu ngi siggi yowmal xiyaam rek lañuy ñuy sëggal sujud ñu nga sujud yowmal xiyaam la ñuy siggi boo ne asalaamaaleykum yàlla boole seen jëf ya ak sa jëf jël def ci kon ne pour Sidi Ahmed Mbaye bu Chérif Ibrahima Aïdara Atijaan bu Roqaya Géey yii ku ko mën a fay yàlla kenn mënu ko fey yàlla waaw jullil nag jaamul yàlla waaye bu ci aj sa ajjana jaamul yàlla te gëm ne yàlla mooy dugalee ajjana waaye nga boole kook nag bëgg rasulullah lii rek laa bëggoon a wax mooy lu ñu mën a jaamu yàlla nañ ko booleeg bëgg yonent bi te bëgg yonent bi nag bu ñu ko yemalee ci làmmiñ ne ñuy julli ci moom lum gàtt gàtt bër bu set ku jëlul tari ku jël tarixa bi moom taxul may wax kooku moom obligation la ci moom waaye ki jëlul tarixa bi lum gàtt-gàtt maa ngi lay ñaan bër bu set defal téeméeri salaatu àla nabi salaatu àla nabi lum gàtt-gàtt def ci téeméer yow ki may déglu tey xale bu tuuti yow ki may déglu tey xale bu jigéen bu ndaw yow mi may déglu di mécanicien yow mi may déglu di jàng tailleur yow mi may déglu di jàng menuiserie yow mi may déglu di maçon yow mi may déglu di étudiant yow mi may déglu di élève bu war a dem jàngi primaire góorgóorlu góorlu bër bu set nga def téeméeri salaatu ala nabi mooy allahumma salli moo gën a gàtt ala sayidina muhammadin wa sallim donte salaatan battara la xam nga lu tax waaye moo gën neen salaatan battara la yonent bi nee na mooy xar mu amul geen waaye am nga xar rek yow kay mu ci sart geen yow xar nga bëggoon jamono moo yegg foofu gaa yi boo <laughs> xam nga ko xiif nga indil ko xar dana fa dal di xool ndax xar mu am geen la ñun dugguñ tabaski du tabaski xam nga kii tabaski mooy ki jàpp tarixa taalibe maam borom Touba bi soobu ci yoonu maam borom moom na def salaatu bu mat sëkk tiijaan bi nag soobu ci yoonu tiijaan na def salaatu bu mat sëkk waaye yow mi nga xam ne bokkagoo fenn xa amagoo xar tabaski waru la te xiif nga suñ la nee xara yi rek neel bismillah ren di te fexe dem lakk gaaw noo rëccalee sa biir loolooy salaatan batra boo ko bëggee dégg xar la daal waaye amul geen sa yoon mun na ci geen gi nag yow amal xar rek kuy am xar am nga xar ku amul xar am nga xar loo gàtt gàtt itte yow miy def école primaire boole ci bër bu set nga ne allahuma salli ala seydina muhammadin wa salli tuuku waaye soo yeggoon ci nag allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salli booboo gënal yàlla nag soo ci saxee sa yaay jarul mu lay utali kiis yaa ngi may dégg rose borom rose waaw kañ jarul sa yaay di utali kiis waaw kañ yow mii shérif jarul ngay ñëw ci sa turandoo mu di la bindal kiis yow sëñ Abdou mii jarul ca daara ja ñu naan maam Abdou dañ bëgg xel mi neex mu mokkal alxuraan déedéet saxal ci salaatu ala nabi day fomp xol te xol bu setee rek lu dugg takk waaye bu setul lu dugg day génn te salaatu ala nabi rek moo mën a xëcc xol ba mu weex tal set wecc lu duggati rek day topp loolu salaatu ala nabi rek a ko mën te kiy jàng bëgg na mu mokk kiy jàng métier bëgg na métier mi mokk liggéey bañ naa bëgg naa bañ a fàtte te bëgg na avancement loolu salaatu ala nabi rek a ko mën mooy caabi passe partout yow jigéen ji nga xam ne da gis sa règle ba yàlla ne la bul julli baal naa la julli julli gi bu ko fay julli gi kenn du ko fay waaye bu weeru koor jotee nga gis sa mbaax sa règle da koy fay ndax at ak at la moo tax bii quotidien la bër bu set moo tax yàlla ne la li la jot a faat te règle la ci julli boo setee bàyyil ma julli yooyu jéggal naa la ko waaye commencé fi nga setee bu dee weeru koor nag mu ne la noti ko ndax at ba at la la ma la lebal fay ma ko balaa at mi di jeex nga ne d'accord waaye tey loo gis-gis sa règle yow jigéen jàppal rek njàpp moomu dañ ko sopp jàppal rek ñëw yor sa kurus allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaatu ala nabi rek moo am garanti bu day ni boo setee jàng ko ñu nangu boo setul jàng ko ñu nangu soo jàppee jàng ko ñu nangu soo jàppul jàng ko ñu nangu génnal ci duus bi léegi ñëpp xam ne danga ngaa tuur ndox wala da nga gannaaw da nga dem gannaaw kër nga génn taxaw ci biir ci mbedd mi al ci ëtt bi alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jar na ko xam nga nu tax am na ko bëgg a dem cabinet te mënu ko ah waaw moo tax ñu alhamdulilahi alladi xaw ma naka minal xubusi waaw moo tax boo génnee yonent bi ne santal yàlla xam nga lu tax am na ku ko bëgg tuur ndox te balaa tuur ndox médecin yi ñooy daje Mansour a ngi nii xam na li may ci hôpital lay liggéey am na koo xam ne balaa tuur ndox médecin yi dajee pikiir ko jël raakool monteel ko pour mu mën a tuur ndox am koo xam ne balaa tuur ndox dina toog 48 heures garab bu ne dinañ ko ko naan nàndal pour mu mën a dem gannaaw kër yow nga lekk sa ceebu jën sa biir fees nga naan sa ndox gallax naan attaaya jaaxaan fell sa guro yéey wala sa yéey sa si ngom jaaxaan ba ba ba ba ba tuur ndox yëngal la nga ne bëreet jël sa tala dugg ci biir toile bi tuur ndox génn waaye neen alhamdulilahi rabbil alamin ndax la ma diisaloon yàlla jël na ko bu ca yem dóoral salatu ala nabi ci saa si xamoo dañuy bañ ñàkk teggin sax waaye boo ko dóoroon ci biir toilette bi yàlla nangu billaahi ci biir douche bi boo fa toogoon di def salatu ala nabi yàlla nangu ko ci biir douche bi salaatu ala nabi rek am boobu garanti yow Chérif Ibrahima nekkal ak sa soxna ci biir néeg bi yéen a xam lu ngeen di def waaye boole leen ci salaatu ala nabi yàlla na nangu na neexee nga ne soxna si ngeen di dóor salaatu ala nabi yàlla moom rek ka fa balaa yonent bi rek mooy caabi passe partout bu dee alxuraan sañatoo ah bu dee alxuraan sañatoo ko ndax dafa am teggin yu alxuraan laaj bu dee wérd nag sañatoo ko bu dee turi yàlla léegi nga torox bu dee turi yàlla moom ci saa si ngay am ndax dafa am neneen nu koy def yow nga ne futteeku ne dungu di dóor sa turi yàlla yàlla ngi lay xaar waaye bu dee salaatu ala bi yàlla dafa naan malaaka yi bu mu rëcc kii booleel na ma ñaar mu ngeeg soxnaam ci biir néeg bi ba noppi nag ñu may bàyyi xel ci sama yonent bi kon na nangu leen booy ŋaang rek ñu bind loolu salatu ala bi rekk ko am moo tax nañ ci góorgóorlu li ma leen di wax du caaxaan ne moom rek a fi des ci jamono imaam Yuusu Géey mii lu ngeen ko bëgg-bëgg ba ñëw mu naan leen yaa sattaaru yaa jabbaaru yaa qaxaaru ak a baax dëgg la de waaye moom mu ngi ci salaatul faatiheem di leen nax salaatu ala nabi mooy li xew ci jamono tey mooy li valable ba bés piñ ci taxaw te du gaañ kenn kenn du ci alko kenn du ci toroxe leneen lu dul moom nag mën na laa toroxal gis nga julli li muy baax baax boo jullee te amoo njàpp te tey ko yéefar na yàlla wut na yet topp ci sa ko weeru koor nga nga gis jàdd gauche jàdd droite gisoo kenn xaaral ko jëm te benn mbiskit benn pomme dogiti banaana wéet gallaxle ko génn naa si weeru koor yi ni méttee fekk yow jege woo war yàlla rëq sa